So this is ma yàlla ma ko sidd rek soo gisee suma loxo yi def definitely fitting I motor mechanics five years lu santaay rek laa fa jëlee Jelly, ma fatala. just loose and tight. My music be mom. The one who brought like a master of arts. Because I'm not a master of arts. True yalla. True yalla, you know. Because the guy, the guy, the guy, I'm master of arts. I've did it for several times, you know. And I'm gonna entertain some millions of people within one one hour together. I'm only a man. So left now, come su wax dëgg yàlla sënañ ci musique trop loolu nag certificat bu ñu jox kirib kalaf waa yàlla ci boobaam daf lay joxe yooyu meen <laughs> su waaw doon la demee fi mu nekk alhamdulilah alhamdulilah musique moom Gambia yéeme rek mm. waaye nag alhamdulilah. oncle <laughs> um, Moussa uh, balaa may ñëw fii def naa ay gestu laajte naa ñit yu bari bëri kan mooy Moussa Afia wax neen ma lu bëree bari si yow waaye tamit dégg noonu ne um, time boo bëggoon def musique um, sa famille nanguwuñ toon loolu lu am la ndax ma def musique ñoom bëgguñ ko woon mel dégg naa sax am naa maam bu daan xalam xaw ma ko nag. Mm-hmm. ko dégg. because time bako wara ya laaj my parents fek na ñu ñu laxu ñu gañu ta ñom rek ñoma doy ci dat question wata tigal na amna amon na mam bran xalam wa di gal way ñoon bëgguñ won ma def music atol all at all dama daan di ko def bis ma papa gañu nag on di sorry 1972 ci la am fit tikina eh ay suma ma demaan kazaksa samba su ma ñëwee gars yi xaw ma mete xaw ma mete daal because of lu tax ma dem kasak xam <laughs> nga rek dangay waaru daal ñoom dañ foog soo ko soo ko doon rek yàqu nga moo tax ma woyal la woy ma la wax léegi waaw bala jigi mu saa kaay kasagal ñu yaa ñu war a fay mbaar njaay am say lenge ma tontu bisimilaay bisimilaay kasak laa doore doon raam di jéem tey mu doon enu bés bu njëkk ba ma woy feeñoo cay bésu keroog la ma xool jooy defe yàqu naa fekk yàquma loolu njañ bu gëntoon ne bala jigi doom la konoon mu kontaan woyaa yooyu bi moom alhamdulilah ba nga koo def waaye dugaluma ci benn banditisme daal mm-hmm. maa ngi koy def dama am famille gis nga non benn pa dama la koy wax rek بين با مسلمة كوا وح لسان كتدفع أيون فاميلهم فقصون سماي ويدا مدان كما أكيو واه دوما ميبني من تبد من دمالي هيبي أما دمالي هيبي دال مان شيء دروغر دروغر لا أما آه، ما دب تجي دكان بما واحد كبيسة تفاي نعم ما دم تجي دكان من ما ما جلي بقى ديفيل ني مني يرفتيت doot ci bunta bi baalal ma axa ba egg si ne ko baalal ma axa ci lan mhm. ne man dama foogoon ne waa dëgg yàlla yow doo xippi doo xool sax yaa ngi drogue rek ma ne ko non musique bi suma profession la mhm. waaye man dama am famille kawam yow waaw ah, dama lii suma suma suma liggéey la nag su ma laajee ma fecce ba jiitu sax naa ko def mhm. waaye nag ama responsablement waa ji rus bi meen non du ma wax dëkk bi kon na fay xam ne la bu dee mu ngi dunda yi noonu jaar naa fa ak kenn ci jaar ñu mee waaw Fatou Samba Birame all right um, Uncle Musa ba léegi tamit ñu ne ku am yokkute li nga xamne tamit yaa ngi ko doon si bir music bi yokute bi yeb amna na yu bari bëri yoo janku wantel manam sa challenges am doñu ñu si may tuti وبالتالي oh, سيجيبهم Africa, في افريكا لا تيكو كاي لو هي سو سو بري وزا كاي بري دانو ساكو I'm going to mean because some people when you say the black art is very wrong. Mm-hmm. It is my latest release with Soldier. I'm not mm-hmm. going to cassette my Soldar. maa ngi koy wax ci benn song Africa pour ñu bàyyi liggéeyante bi xam nga lu ñuy tërreel fighting is too much mm-hmm. te nit ku ni muy xeexee eh, xam nga loolu la wax ci gaal gi dem na géej am na suma benn morceau gaal gi dem na géej gaal gi dem na géej soo ko déggee maa ngi naan dëgga dëgga lii mooy xam-xam noon lu gis bi xam-xam bu du doon ak tayal plane du ma naawal ndakoon dinaa liggéey lu gën a màgg avion lekk tamay naawal te duma fay ab dërëm waaw because maam yi nañ ko daan defee dañ lay suñu la bëggee corté corté gunóor la ñoo bi Amérique gunóor hmm. def ko ci téere mu dem ba Amérique daf jëy léegi suñ set yi ñu ngi bugg a tukki fii saa da leen ba ñuy dem baaku yi xam nga loolu is laziness hmm. moo ñu ko indil su fekkoon ne xam-xam bi ñu amoon dañ ko doon dimbalante kon du yëpp du am daal waaye Afrique ñun dañ soxor yaa wicket bare am nañu xam-xam It's very Gambia sant yàlla di leen ñaanal di ñaanal ki nga xam ne nag mooy aji jiitu ji nga xam ne euh, Gambian Talent saa su ne dañuy jóg di wane li nga xam ne nag mooy Musa Afia Ngum liggéeyam bi nga xam ne liggéeyal na ko Gambia waaye liggéeyal na ko senegal waaye liggéeyal na ko àddina si yëpp tey suñ toogee ba dégg musique Gambia si yeneen yeneen i ku mel ni Musa Afia Ngum euh, jar nañoo delloo ko njukkal. bési tey bi di october 11 bés bii la génnoon àddina 2015 Musa Afia Ngum nekk artiste boo xam ne artiste bu xarañ nekk artiste boo xam ne nu ma koy waxee rek euh, soo déggee Gambia soo déggee Banjul soo déggee li nga xam ne nag mooy Gambia ak ay ñoñam Moussa Affe Ngom moo tax tey ñu dégg ko kon nag Moussa Affe Ngom la ñuy jooy Moussa Affe Ngom ngay jooy waaye manit moom lay jooy kon nag àddina si moom la ñuy jooy suñu Moussa dem na dem na dem na dem na waaye dinañ génn waxtaan ak ay njoñam laajte leen kan mooy woon Moussa Affe Ngom mu nekkoon jàmbaar Sejambari. jàmbaar yi Balla Jeme Sène ak Bakara nit ku bax ko xamne setu Gambia la Moussa Ngom maa ngi door di anda mom 1975 76 mako dan daan xam-xami nit ku ñuul fu nekk laa jaara moom am nag lu jiitu loolu njome njañ lool li njañ njomee jur tafsir demba mu jur màkki suma baay loolu li jur sëriñ mbay laar mu jur ramatulaay ñang yaayu Musaa Ngom suñ ñaari maam bokk daya baay mu nekkoon it suma ma séddoon ak suma xarit ma yàgg koo xam ci musique ba dara du dara ñu bokk bokk ngéwél gi bokk aar bi circulation lamp faal c'est la taalibe c'est la taalibe Moussa Afia Ngom mook suma yaaya bokka ndey ak baay moom mooy suma caati ñoom yaay bu góor man suma nijaay la pare moo ma yar moo dugal ci musique bi waaw ñi moo nekk Sénégal yëpp maa moo ma fa nekk kon xam nga kooku xam na Moussa Moussa suma rakk la bokk naa ci li tax mu start music most of songs in mu daan Marco binda I taught him to sing songs most of them that's a fact he was a very talented artist very open honest good at what he was doing uh, uh, yàlla nag moom moom jaam he decrees as he wishes mooy di ñaan yal na ko yàlla xare àjjana am na ñu itam that's all we waiting for Musa Ngum Afia Musa Ngum ba doola du dégg njoowaan ba nu koy joow muy joowaanu dina xaw mbaay boo demee nga ni Musa ñu ngi koy jooy te noppee guñu eh, Musa Ngum nit ku baax la woon taalibi la woon nit ku baax la woon taalibe la woon macha allah te ku mën a woon a way waaw te nit ku baax la kon bu fekkee ni gédd na génn na àddina ñëpp dinañ si am naqar waaw keroog ñun ñëpp dañ am naqar. way jooy la ñu Moussa Afia Ngom dem na. Saa Ngom a baay Saa naan bu mag ci biir Gambie fii àddina bi it xam ko nañu bàyyi liggéeyante bi liggéeyante fi dof la woon ñu ni ñuy wéyee Musa ñu. Fada daal li ma la mën a wax si moom daal suñ ko doon waxtee beele du jeex Fada baax na oyof na yiiw na tabe na Fada daal lépp a ngi ci moom daal xanaa dal jiko wali wala yor hmm. ah. mo suma yaay maam Jome Ngom ñoo bokka ndey ak bay meñe si Antoumane gom ak semua Ñang sama yaay dem na ndar sama rakku yaay dem na ndar sama bay dem na tol sama rakku bay dem na tol xale yi jangi nañ ñu naan ba rotina musa Afia mom duma ne artiste sax dama ne kepp ko xamne gambian nga xam nga ko ku nekk gambien tamit xam nga ko eh, ci ci eh, music mu nekk tam because eh, nekk na si si fil nekk na comme liggéeyam si fil bi bi nga xam ne definitely ñëpp a ko respect ko si bugg ko si man moom dina wax ne ñun loki naa loki boo xam ne bokk naa ak moom stage invite naa ko suma programme suma anniversary naka alliance franco mu bàyyi soxlaam yëpp mu ñëw guddi bi bokk ak ñun sound bi ba tey nit yi dañ ko dee play definitely euh, te tamit damaa ne képp koo xam ne artiste nga te nga bëgg amee am ay in music fii si Sénégal bi nga jàng ci moom si moom ne euh, music ñeme la because jógee na fi cross border dem toog Sénégal proof fa boppam bàyyi fa respect bàyyi fa liggéey bàyyi fa gars yi gëm ko xam ne Gambia la jógee but euh, at least bàyyi na fa. Eh, lo xamne dal kenn duko fa faté té lolu jangane ko man ma pas personnel jangana ko si mom ne niki dal lepp lo xamne yang ko def ko ro banjul banjul ye, nelen len banjul banjul ye. well the late musangom i think i uh, grow up um, knowing musangom because of his good music and his love for senegambia sa songs has always something to do with the society and it was very important for us to to, to link ourselves with those lyrics because um, he was always striving to make the society a brighter place through his good lyrics, um, through teaching, preaching the people um, good manners and um, way forward to, to the life we are living. So it has really done certain things, many things in me. Uh, Yalla burla la, nit Lolu yep so amé alel amo banex. Waaw uh, Pa musa nak eh, bala lima sen lima wara muna wax ci mom bari na ndax fay sun papa di sun xarit ndax eh, mom mun wax lim def ci ar yeb mom ak sun wajur bu gora ko def eh, Baro Mbay man maa fatale ko bi ñoo nekkal lu ndaw man ak fa maire ak pa sun dan practice yi Serekunda dañ ñu daan yóbbuwaale maire awu Pa musa suma pankoo tegal maa ngi fàttale ko ñun ci perong bi lañu tok ñom ñu nekk ci salle bi di practice euh, muy lo xamné lu yag la ba pare mu def ak suma pa lu bari den nyun tok ay weeks ñun ñun xalé yi rek ñoy nekk ci kër gi suma pa ak mère ak pa Moussa di to nekk ay to nekk ci Greta Banjul be yoyu kon euh, fogna nemom nyun moom ñun so gisé ñu xam mbiri artiste xam mbiri ay artiste buy dem ay to bay sa njabot gannaaw ak lepp Eh, Fogna suma ba anda bim don anda ak Pa ak mer lol tax nañu am ci experience bu bare bare bare bare um tay suma don wax ci musa Faye Ngom suñu papa nonu um dina nek something li nga xamne it's it's pa bu tabela won ku bëgg njabotam ku yërem njabotam ku bëggon ku bëggon doomi aadama la te ku ñeme wona joxe ñam la bukan um, bugana la benga fongne tara def la ragal en tant que dom ku don waxtana domam dong comme moromam nga eh, doylu ak talibé in a sense ne comme uh, nu aduna so soo rek uh, yu bëri di nga ci noppal sa boobu waaye doylu boobu fa nga Tali tamit lu am solo la ci doomi adam te nek na lo xam ne comme nsangam ku ko am xam ne borom moy borom akasa te suñ ne borom akasa moy ko am taalibe amuna na bi nga xam ne ñun ñëpp daanaka jàngee nañ lolu ci mom bi nga xam ne waaw moo tax yaa ngi mën content tout loo mën am ci aduna àdduna sax jël suma jabar ñaar yoon lay wëy di wëy di wëy wa musa afiya Ngom ñun den juddu xam ko ko que mayon nako daraja mayon nako bayre munon na wëy sun yaay ak sun nijaay noko daan bëggee be ñun ñu juddu fekkaleen ci mbekté bobu yalla tamit nu mag yalla boole no mom you know so mun na la wax né is more than thirty something years mohammed Musa Ngom ak léegi. gañi boloo leen. gaañi booloo leen kon nag gaañi liggéey leen amoon na jamono joo xam ne maam ni coono woon nañ li metti woon ci liggéey bi sunu maam ni def nañu ko kon nen leen ànd booloo te jàpp ci te sito gaañi boore leen boore leen liggéey leen de knew him for who he was I mean bu baax la woon loolu lañ war a def rek muy Moussa muy beneen artiste bu fi jógee Gambia mooy undi dëkk bi nga xam ne ormaaluñ aat comme yeneen dëkk yi loolu rek a saad muy Moussa ñoom Pape Touré ñoom Ali Hab ñoom Malandou Gassama am na Gambian artiste yu powerful ñu gaañu parce que they never waaye nag loolu ni demee la foog ñu understand ne art is a very important aspect to our civilization. akasa loolu jox nga ma rek ma fàttaliku kàddoom yi liñ ko gënoon a ràññee muy akasa Musa Afia ngom artiste la woon xakkan ci biir réew mi. dafa juddoo ngéwél yaroo ci ngéwél magee ci ngéwél ba yàlla defit mu deyee ci ngéwél dafa nekkoon an icon ba pare sax mu bàyyi gannaawam ay ngéwél sax fàtte naa ci aat loolu kon dafa doon koo xam ne dafa transpire li nga xam ne rek ne moom la nit war a séntu ci moom nga doon géwél nga mag ba dee ci ngewel ngay bay ay njabot ñu doon ay ngewel tamit kon ba léegi sa xayre ci bi muy move di dem on kon loolu mandarga bu saxaw la Moussa dafa topon magam ci groupe bi ñom magam yi mooy Abdoulaye Kabir Ngom ci sen bir la màggee be janga bañ ko ekkati joko Mike Mike joju mu yor nak mu liggéey ak ñom def so many pieces ci loxo Gelewaar ba yàlla ñu def mu move on to a solo dem join senegal sax ba mu gisee ne foofu la carrière am gën a tabe gën a taxaw fa lañ ko gënoon a jël mu taxaw te ba pare mu ñëw nekk de ku duutoon ku controversial sax dafa ñëwoon ku am his own niche muy taxawaayam bu uteeg li nit ñi am muy ne moom. Sénégal bi bii mu gis ak fracturing bi mu am gis noonu muy taxaw after confederation bi mu jël ko gàkkoo ko nag mu doon one of the artists who celebrated and promoted this integration bi diggante Gambia ak Sénégal mu amoon na benn fashion ak even design bi mu génnee woon boo xam ne ku ko gis rek ñu ne la ne euh, Sénégambia muy su mooy dàlla bi moo jël fële léegi léegi sax ak xopoto yére yi moo boole. textile Gambia ak fële so loolu yëpp moo doon di impact di wone di impression about Sénégambia. Moussa musique am dafa law ba ci biti parce que wolof dam ne ah, dañ ne woy bu diglewul xamlewul bu terewul yeetewul doona tuyul woy ab naxaate la Moussa nag woyam da nga daf lay jubal daf lay teg ci yooni siraatal mustaqim daf lay am loo yërmande message la is full of message Moussa wuyam dafa law ci wool bi waaw foo dem fekk ko fa Moussa Ngom dama ko daan fekki PWD transport muy liggéey mécanicien fi tala woon su ma wàccaan dem seeti ko fa mu jegi mu ne ma baro lii du ma ci continuer su ma loxo yi du dóor nit te du pour téye ak ay kële di wées man woykat laa su ma loxo bi microfoot la xam loolu ci seventies yi la Ali yàgg na mu nekk nit ku baax koo xam ne nit ku doylu ba pare aar bi daf ci nekkoon te aleel tegu ko ci woon ba pare boroom xam-xam bu rëy wallaahi Gambia waruñoo jéggaane ci wàlli wëy ak aar fenn ndax ñu ngi ko am Gambia gi Moussa Ngom li mu wax ci musique li def ci aar ci Afrique fii ah su ma newul mooy ndomba wanit mu ngi ca kaw a li mu woy su ko buggee lim fii lañoo fanaan dafa bari ndax ñëwuñ fa pour jataaye woy waaye ndikoon ma wax leen ci lu bari mu ne poti ndaali yàlla yi ëppante waaye couleur yaa wuute bu sa bët weexee rek sa couleur réer la loolu nag dafa junj lu baree baree baree bëri di ko ñaanal yàlla barke Seydina Muhammad fam nekk kenal ko fi mu jógee. jàng naa lu bari si moom jàng naa si moom ngóom doylu góom boppam. lolu mom jangana ko ci mom Moussa nekkoon daanaan boo xam ne fi nekk lañ ko doga xam nekkon danan bu mag di xam di mo def te roy ci ken dafa amone biri bopam mo taxone senegal bi bu ko adina ah, bi bu ko ndax loy def gum ci sa bop rek ñu dañu see fekk si Moussa non la mel tournée yu bari ñu koy aw makoy aw sama jëgër diko teggal wa ma sha allah wow yag nañu and ak mom dem ay tournée dem fu nek waaw ñukoy aw nit ku noppé nit ko xamni amut sax wax soko fekke mu tok sa comportement am fokk ni way kat la ah, ndax noppem waaw. Moussa Ngom euh luma jang ci mom barina barina bi ko suma papa daf ma dan daan yónni time bu ma nekkee xaleel maa daan jëli ji gerté saaf di len yobul because of bu njëkk ba ah, mag yi dañ loof gerte saaf trop toogoon ngoon nii ay daytime nii di lekk gerte saaf ak mbuuru ah, ba laaki nongo bi sax ñoom Alaaji Mansour di la wax càkkum cale lañ ko dee ooyee si laaki nongo xam naa yow doo xam loolu <laughs> Moussa jànga naa si moom mooy ah, affaire lël gis nga ne misigam bu bari daf daan taagu mbaar because of diine islaam dafa wax ne doomi julit soo juddoo before ngay def anything da nga war a dem góor néegi góor soo duggee néegi góor ba pare si lañ laa door a dugal alxuraan soo duggee alxuraan ba pare jànge daara ba pare si ngaa door a mut pour dem a taakaan nekk daal loo bugg a doon waaye foog nga dugg a néegi góor te néegi góor googu noonu Musa Afia Ngum moo ñu ko doon wéyal ñun xale yi ñu ko óoba xam mu naan tàggu naa maan njaay tàggatuma mbaa njaay su ma yaay dem na ndar su ma yàkki mbaay dem na ndar comme wéy daan wéy noonu soo Musa am na lu bari ñun luñ su fekke dañu wo xam tay fi duñ fi joggé because of Moussa dafa do lot si all over the globe all over the globe Moussa dafa do lot lima jangati mom barina bari na naa la uh, na Moussa so toge mom ben 2 minutes li nga jangati mom yermande amna bes ñu ngi tok fi ci gannaaw ñu ko wat nel bu es xam nga nel ñu ko wat ñu tok ci gannaaw fi suñu ben mbokka bu dekk ci kër gi domam bi ni la em xalé la mu ñëw xool Moussa ba sàppali ko rek dóor loxoom bi ci nelam ñun ñëpp ñu mer mu ne bàyyi leen ko bu ko kenn laal mun naa am su fekkoon ne dóoruma ci boppa de teppiwu ma ni kon ngir leneen mooy am ci suma boppam xam nga kooku <laughs> xam nga fi mu nekk génération bii nii su xale nii fekka la nga toog mu mbéj la loo koo def hmm? ah, mu moom nag daf ne bu ko kenn laal waaw ah, parce que yalla moko yoni pour mu fanxal li waroon ñew ñëw ah, li nga mëna jang ci mom bari na dafa bari torop Moussa dafa am ben bi sax nit ñëw muy dépassam nga dugga si ne amulo sa njaboot gaa nga tok mu génnee jox la ko nga wax ko mu ne la say dawal seigne fallu nga man musa li ma jang ci mom dafa bari nga mom rek musa li fil armée la mo taxoon ngay gis muy woy kasak parce que kasak mbar dang fa jangé comme camp la dañ lay jangal ak yeta soo fa génné war nga am yar am teggin am respect da fonka say wajuri waaw man nag man nag kay yëpp suma fees sénégal ak gambie yëpp friend lañ dañ day def lu bari together ku ci nekkul sama friend rek baaxuloo <laughs> because I know I'm not difficult waaye ku ci nekkul suma frère rek baaxuloo xam naa nag ñëpp duñ mën a nekk a ànd sa frère waaye ku ci nekkul suma frère rek baaxuloo pour man non because man dangay waaru amoo benn problème moo taxoon ma dem senegal di ko fa easily xam nga Sénégal si dee laaj mi ma dan Gambia wala ma proud tak to be a Gambian. waaw de li ma mën a fàttali si moom bari waaye mun naa sooy benn. mooy lim doon dox diggante Sénégal ak Gambie pour Sénégal Sénégal ak Sénégambie jéego pour Sénégal ak Gambie nekk benn ne moom foog bokkuñ benn président beneen yi jiite ko moom du musa wécci daalaam yee kawasam yi waaw Fada moom li ma mën a fàttale ko ci moom yooyu daf ma gën a marqué yooyu moom bokk na ci because kiy dox réew ak réew pour ñu nekk benn te ñëpp xam nañ affaire yi réew ak réew suñ boodee léegi-léegi yu sew daf fare duga waaw so moom ira even benn time bi Sénégal ak Gambia di play ba mu nekkoon problème boobu fii ñu dem ba foofu noonu afta ma ne ñoom nee na jàlloo fii euh, immigration ne leen nañ leen dem sayti fada <coughs> ñu dem seeti ko bi ñu demee seeti ko balaa maaj bi di door li mu wax mooy mu ne ma la xamee man man daal liñ boole Sénégal ak Gambie Gambien yi pour ñu play mu ne ma neexuma mu ma because diggante ñaari réew yi waruñ leen a boole si mu ne kaas waruñ woon di nangu yi te gis nga lim ñëw prédic foofu la ñëw mujjee problème la mujjee. am na benn anniversaire bu mu laas def euh, euh, jaama xool ma dem fa time boobu sandeng mu ngi woy ñu àndama sandeng the next day mu call ma dafa waxa waxa waxa wax he said a lot of things you know encourage di di ñu encourage euh, di ñu digal di ñu advice on what to do on how to handle some career sama mam dem nadar sama reki mam dem nadar sama bay dem na tol sama reki bay dem na tol yaay wala ya jangi nañ te bindan warotina doy na weto sama sali ni jaay bayatuna way suma fa duggee day mel ni moom lay jëndee waaw Moussa really uh, moom sun uh, dictionary la you know Moussa Ngum we have lots to learn about him ba pare tey war xale yi war nañ di gën a mën a jàng si moom si fàttaliku bi noo def nii tey you know Moussa Ngum lu ma jàng si moom uh, mooy humanity ñite humanity you know uh, oyof xam nga su ma nee ñite nag tënk na yëpp te Moussa Ngum ku ñite la woon ku bëggoon doomu aadama yi la ku amoon cofeel la gis na tamit euh, njabootam nekk njaboot goo xam ne suma ma sañoon euh, dama ñaan man tamit suma doom yi màgga ba mel ni njabootam doylu ak macha allah gom yàlla Moussa ngoom dañ naan ànd dañoo pilee ba pare xaalis bañ am fiñ ko compter bugg koo xam am na suñ benn waaye juñ Moussa jox xaalis bu bari pour mu wër senegal diggante Sokone dem Kaolack ba Bambey Kaffrine pour mu dem organiser dëkk bu nekk fañ war a pile fay xool yi ak yëpp waa ji dem lu mut one week dellusiwaat ne Moussa Ngom yëpp nooy na wër naa fépp pare naa dalukaay yeeg hôtel yaa yëpp delluwaat ndeke waa ji dafa lekk xaalis ba dem dëkk bu ñu àgg rek suñ ne jameet ca borom dëkk ba dañoo tiit sax. suñ leen ne programme bi fan la ak fi ñu war a wàccaala mu ne ñu ne ñu bañ programme keroog moto bi jël dañ wër Sénégal yëpp del si yàlla def ñuy dem doo faat ñëw ba gaaraas yi ñooro Kaolack waaja ñu defoon loolu toog rek am ci biir van bi ku ku yooxu ne way diw sàngama la ne ñu jàpp ko jiital ko ne police keroog mu saagom daf doon jooy di ñaan bay téye suñ tàggay ne nañ ko bàyyi nga xam ne kooku nit ku baax la. su ma xool fees na bilaay mënatuma wax ci moom. ku am diina la njëkk ku am yërmande la ku bugg njabootam la ku bugg a faamileem la musaa duy bugg a jooyloo kenn soo meree sax daf laa neexal kon xam nga loolu jafe na ci jamono ji ñu nekk nii musaa am na yërmande musaa dal na Moussa tey na musaa jullite na Moussa bugg na njabootam musaa bugg na faamileem musa bugg na Sénégambia bugg na Touba boobu mooy foos xolam waaw. suñ toogaan nii si restaurant bi ne be tok su ko defé mu ma wax ñi nga xamné dañ gañ woon ñu yaga mom du wax waxe ngir di jambu so toge mom ni wéet ñaka wéet musa do wax jambu musa du mer mosuma ko gis bu meré ko ko nuru ci family bi rek do am problème suñ toga ni ma xëye léegi noonu rek la ma daan ooyee ba doom ji ñu wax maam si seex te liggéey kiw tv bi noonu rek la ma dee ooyee su ma ooyee noonu su ma yaram bi daf dee daw boobu nga dee ma ko danga ma dee delloo gannaaw kenn sut bàyyim fay sa barke bi naa si ñoom torop su ma mu ne ma xam nga doole mu ne ko kuy doole faada mu ne ma doole doomi maam Yunus la woon mu ne ko man xaw ma ko mu ne ma xale nga Mbaye Gueye dina ko war a xam ma ne ko dëgër la nekkate doole mooy pam boobu waaye mu ne la xam nga diw sàngam ñooñu dañoo gaañu bu yàgg mu ñooñu rek laa waxtaanee nii la mel noonu nii la mel noonu nangam nangam rek laa waxtaanee nekkoon ku baax bu mu boppam mu ne ma soo góorgóorloo dina baax fay léegi danga war a ñeme mu ko faada man dama dee ruus mu ne ma waa ruus am na sax waaye dañ ko tegi teg ko fii de na ne ko xëj na noonu dama yàlla bindee waaye mënut a denc man ni ma yow soy wi yaram yaram daf de daw ma ñemeñee tuti rek dina bax li daf mako daan edda bu baaxa baaxa baax ni ma lañ def lu bare bare bare bare ñaanal rek waaw pa musa nak dama naan xam nañ koy musa afiya Ngom ndax eh, nit ku ne eh, Seydina Muhammad sax bañ ko waré xam diga dafa gadaye Makka dem Medina ñu gën ko xam nit ku ne xejna na li la sax dina la jégué torop ba do xam li valeur am pa Moussa dama fogg né sax jambour ñé ko gëna xam dan gambien si because su la orienté every day so gis pa Moussa wala so gis ben abu ak fafa mu jégué la lool yomba la lool xëj na seen ak sen wot xëj na yow sax dina la xawa dina xawa fort ci yow waaye ñi nga xam ne ñooy sori ñooy gën a xam ne kii ndaanaan la te ñun ñi nga xam ne ñun ñooy ay artistes suñ génnee ci biti foog naa feedback bi di gën a am sax ci jàmbur ñi ndax duñ ñuy faral di gis lu bari ndax fu ci mel ni Sénégal gi sax suñ ne abu ak faafa ñun dañ ko bañ sax dañoo nëbbatu suñu fa déggee ku nekk bëgg nañoo interview ku nekk bëgg nañoo am ci sa plateforme xëj na nit ki always rek li la jege torop dooy xam valeur waaye Pa Moussa dafay koo xam ne euh, he is worth to ndax koo xam ne la ku taxawal Afrique la ku gëm boppam ci li moo def dafa bañ ba de ba dem. Amba Moussa li ma gën a neex ci moom mooy ne comme li ma la wax rek intégration bi mu doon di oote te mu dëkkoo ko because newut ne dafa oote rek dëkkoo ko wonew ko waaye daf ko génnee ci biir woyam yi soo seetee di lyrics si moo di mambo si moo génnee ak woy yi moo génnee ci boppam. most of them they are even oral traditions from both Senegal and Gambia ak lépp lu mu wéy it has to have a cross border issue which we imply about integration loolu dekkal na ci li ma si jofal moj ci mbiram dina woy the cultures of Senegambia or Gambia or Sénégal te lii mooy woon centerpiece am te ba pare moom liggéeyam yëpp ci lii la bésoon te ci lii la newoon all the time kon Moussa même ba demee sa ba mag ñu bëgg ko jëlee biir Sénégal ñu teg ko fi muy widdi den euh, former président bi pour ñu tegee ko fii ba mu ñëwee mënut a absorb ba léegi ci biir réew mi à soj because xol baa nga fees ak lam nii noonu lam euh, jotoon xam biir Sénégal sax xamatu ko woon biir Gambia te fiyee woon route sam waaye taxatoon mu bàyyi woon fii nii because njaboot bi has always been in here so def daan di criss cross diggante googu noonu Gambia ak fii dem ñëw. so waaye potentially the bulk of his work ak xiiraayu liggéeyam bi yëpp li ci ëppoon yëpp mu ngi ko doon defee biir Sénégal kon loolu joxoon nañu a very good bridge li nga xam ne ah, neexoon na ma ci lool pour mu wone dis intégration bi daal ni Gambia ak Sénégal loolu benn la. Ah, du ne Moussa Ngom sax waaye Gambia ñun xamuñ bëri na de. lu lu lu lu lu naka la tuddaat euh, sikarkati soose bi day wax rek mu ne naka comme ma généralise ko ne Gambien lu di xam nit ku baaxam ba su dee dégg la loolu ma fi nekk euh, Moussa Ngom moom ñun xamuñ ko tuuti sax because damaa ne soo gisee ma ne ñun xamuñ ko tuuti demal Sénégal fu ko gars yi di réet ñun réetuñ ko quarter of that sax you understand ñooñu ñooñu ko gën a xam sax te du ma ne ñooñu xam nañ ko tuutali because gis nga an artiste kenn mënu koo xam ba jeexal only li nga xam rek loolu ngay loolu nga day si moom because artist la mu ngee dundal life am ba pare mu ngee dundal life fi artist these are two different personalities these are two different identities xam nga they are two different in everything because niki ki nooy behavior ak sa family ni ngay dundee ak ñoom ak sa level ni ngay dundee ak sa diggante sa borom o oh, sa diggante sa siring o oh, that level is different from ni nga sa fancy sa job and everything I understand so why dama wax ne comme ñun senegal ñoo ñu ko gën xam Gambia mom I can release my hand and say that because respect buñ ko jox gida buñ ko jox xam artist bu doon fonka definitely and you know I wish na ñun tam ñu gënoon Eh, yaatal gën a xam lu bëri si moom you know because filoon naa ne amoon na lu bëri yu mënoon a jàng si moom but unfortunately here is the Gambia suñ déglu woon Fada Diga man dama dee toog ay ñeneen comme ma téye yéen a woy Fada di ko wéyantu nii te fekk dem benn instrument woy Fada bi nekkut on dañ ma dee biréeg ne kon Fada lii la doon wax ma ne yéen da ngeen kon yéen lu Fada doon play yëpp yéen nekkule woon di déglu waaw lu mel ni artiste du bi nda yalla bur la nit ki mbur la mbur yaa ka jafe mbur abowul ci bëri mbur yaa si métier ci sa métier ngay doon bur sa ndam ndam bu and ak bànneex yow mi dundal bo amé alal amoo bànneex njëriñoo ko jafe turi mbur ci yoon dafa reuy pour buré bëre mbirim xeex la fam la waré katan ci ab way ngay nay la pour say non ñu hamun xamuñ won tek bu fa faral teg ñu bari xamuñ ko won ya ngi am bénn tagam tam fu waxé né so baxé ñëpp gabon lay jox nga bon sa yaay du kuma ciono mu ne barki demba amna kuma olu be ma ñew mu nan ma mu sangam nga bon du mu bax du gu yété la islam aku ko jité ku bon gëna nga ca way nga bu nga bonit society la iblis aku ko jité ku bax gëna nga ca mu ne bax bari bañ nga bonit bari bañ baaxal te bari bañ mu wor hari lula waji def ba tax nga diko bañ loko bañ bañ baga xam nga faara dañ ko deglu dal faara du gambé rek Sénégal Sénégal nañ ñoo gën a déglu Fada waaw Gambia moom dëgg dëgg dëgg nañ ko wax te dee rek waaye Gambia dañ sàggane te Fada is a Fada ambassador la in music. No, I would say no because if they were knowing, if they know Musa Ngum, they will not let what happened happen. You know, they will not let Musa being in Senegal for so many years because of it, it, it's very easy because somebody when he is doing music okay and the music is going everywhere okay wherever the fans are showing more love frankly speaking that's where you're gonna focus on because of the love was more in senegal than in gambia you know we have witnessed an anniversary done by musa here here in uh, in jama hall Karaba beach we were part of the guest artists who were there but the turnout was so so like I couldn't say it you know and it could have been something that could have been way better than that. Moussa Ngom ba bi ma waajal làqu nii dañ toog maa moom Sénégambia nit ku ñàkk kañaan te am na Mikael am na Pa Yusufa doomam yëpp ay ndaanaan lañ ba ci caatam mi gën a ndaw. waaye daf ma ne Baro yow li nga xam ci man yombut ko ko ci xam lu mu mës a wéy rek xam nga ci dara mu ne ma lu ma wéy rek jox naa la ko tey jox ko Abo Fafa lu leen neex nañ ci def Abo gi nii wax naa leen ko muy nit ku baax ku xam musique ku yàlla mayoon nag xam-xam wallaahi te Moussa Ngom li ma la wax rek li mu wax ci musique bi su ko gàmbee déglu woon benn woyam bu nekk rek ñëpp jëriñoo si. musa Ngom bam naan Afrika di leen Afrique diisoo woon na booba du tey mu ne ndigam yàlla dafa def ci ñun ab xam-xam bu suñuy waajur xamut buñ leen ko seetaan ca la naan seet ci or beeg bi te der bu weex bi jël ko féetale ko boppam tey di ñu ko xajaane te xam ne Africa kon Afrika di so na ku yàgg oote unité la ak nekk ben musa Euh, mooy euh, li ñu jànga si moom xale yi waa Banjul ba pare ñu séddale ko si àdduna bi yëpp mooy euh, tij nañu about respect tic ñu about si biir music xam naka nga ni jëflantee sa waajur bu yàggul Seydina Seydina Omar la ko wax ne la kiram soo fa demee da nga faa fekk big love so Moussa Afia Ngum daal lu ñu fi war wax daal si moom daal suñ fi waree wax daal tey ñu fi jóge waaye daal ku amoon la respect bëggoon Gambia pour ñu ànd si benn ombre la waaw moom bébétam yëpp lii la woon loolu tax mu daan jàll Sénégal bi ko sof musique yi Sénégal dëgg la gënoon naa xaay ñun ñoo gënoon a xaay gaay seen bos waaye afta ñoom tamit gaay yi gën a xaay xaay bi moom nimal na lay fekk loxoy boromam soo ñoom tamit dañ daan bébét dëgg la Moussa tamit dem foofu noonu tamit di play di do lot of music in Sénégal loolu taxutoon mu bàyyi Gambie taxutoon mu uus Gambie Gambie mooy xolam waaye dina dem Sénégal because of bi foofu is so so dem foofu noonu jaale fa som yenn message pour Gambien si di dégg xam ne ne ñoom seen doom mu ngi outside di def lu rëy so bu mu demee ba nga am ay jamono si la ko suñ président bi jëlee Sénégal indi ko fi bi ko soo xam ne ne ñu ngi am banqaas bu mag boo xam ne nii mu ngi génn Gambia dem beneen réew so si la ko suñ président bi indi waaw. Moussa mun naa wax ne maa moom 24/7 ñoo daan nekka musaa su ma nijaay la ba pare mu doonoon suma xarit. dol suma star dol suma idol motax be nga xamne ay yu bari suma woyé dañu né yesa musa Ngom la suñu ma gisul way fekk na ñu né lu juddoo ci tagga bu nawul jaxali bokam ñu né nijaay olof daf ko yaxa rek way ni yaay la du nijaay de ni yaay la parce que mo sa day ak baay musa wéet nañ lu lu jeex musa su bindé woy guddii bor set suñ togué ci gannaaw man dina woy woy bi bam jeex du harmony du melody du everything man kuko hamon la be pare kuko ko la ñu yaga nek waaw ñoo di same spot, um, parce que l'hôpital la ma fekk maanaam mom fajar la won um, waaye nu situation bi don demee fajar bobu non sonu na torop té xam nga so miné di dem ci l'hôpital amna yo xamné so ne ko gisee rek science la lay nek ñu non roche everything dokter Yang don't prescribe any kind of garap so mu ngi stress on that suba be bu a dee waaw at the end of day bu uh, ngi ne aduna rek dafa nekkoon tam luñu sante yalla parce que sonon na nga yalla su soxle mom ku soxla ñaka lolou lañu ka xalat rek ñu delawaat suñu xel ci yalla rek te xamne ne su yàlla bëggee képp ko bëgga ñaka ba it was a very difficult moment it was a very sad moment fàttali lolou sax ah. daf di toyal xol way dañu rek pour mën wax nit ñi waxtaanaa nit ñi bo octobre 11 bis boobu mom benen bis la won waaw bu mu gëna aduna nak definitely man time bu mu gëna aduna exactly la ko yek because euh, suñ suñ drama bi ñu player drum set muy Cheikh Tidiane mo ando nak mom Dakar dem player ji ko understand so that so xamne gañu na euh na euh, Cheikh mo fa play so man cheikh mo man jika text di because the whole traveling am yeb ñun don chat we were don communicate on whatsapp suñ so yi ni ñu ngay dem play ñu ngay play be num you know uh, whatever happen boom happen eh? you know he text me dama ew eh, suba fajar gis text am you know ne oh, boy pa bi de dafa di ma dafa you know dafa sick on the stage ñu wacc yobu ko l'hôpital and we lost him definitely and mu ma fekk fi kër but uh, teel naa ko yëg nag because of Cheikh mu ngi fa woon and Cheikh was a band member of the Humanity Stars. dañ ma kool ne Moussa wàcca na liggéey yeesu dama ko dama ko seetaan samedi fii yeesu just for you la doon play àndaa ñoom Kéba Télo xam nga ma toog fii di ko seetaan just for you ci suba si ñu kool ma ne ma Moussa génn na àddina waaw métti ma waaye nag. am nga rek soo soxlaa suñ boroom soxla dangay bàyyi mu jël te musaa nit yàlla la musaa eh, nit yi sëñ fàllu la Moussa sëñ Fallou rek la gom sëñ Fallou mooy kii maak moom yëpp ci doomam lañ jébbalu waaw moo tax nga dégg benn wéyam mu naan la man day jébbalu naa man ci aafiya liggéeyam a doy xalaatu aafiya mu ne la fali loo duma booleeg yambar mu ne yambar mooy ki gëmut liggéey xamut liggéey xàmmeewul ko baax kookoy yambar am nga di nga gis tooy nga naan kii yambar la déedéet kooku du yambar de yambar mooy ki gëmut liggéey xamut liggéey xàmmeewul ku baax kookaay yambar ñun ñun taalu bi sëñ Fallou lañ sëñ Fallou rek la ñuy moom lañ bugg a moom lañ gis waaw luñ am. gom nañ ne sëñ Fallou ñu ko jox lu baaxul ci ñun sëñ Fallou duñu ko jox ak am nañu ko xam waaye xale yi tey xamuñ ko mooy li ma la wax rek su fekkoon ne tele yi benn weer ñaar wala li sénégalais naan Dakar na door paa léeg nga gis samedi sax ñu ne ñu fàttaliku démba lu bareen fi woon ku mel ni Patouré maa ngi fàttaliku 1970 something booba Sénégal seen musique yi yëpp ay Tumba la. amut sabar ci fàmmoon di di jouer stade Iba ba ay after eight yooyu toog light bi black out off nga dégg sabar yi ci biir woy bi mooy seen woy bi mu naan maam kat ñëwati na sabar yi réer sénégalais yuuxoo ne sabar ci biir musique ci ci musique ñu ngi ko soog a gis waaye nag ñooñu ko gën a soxla Mbaye Gueye fay ñu ngi koo laaj ci kan la moo Youssou fii lañ jaar 1970 71 yëpp. nekk ci paature ñuy daan nekk màggadaan ci ceeks suñ woyee ba si digg abal leen waaye ñun li ñoo fayantoo ak liñ fankut ñoom bañ ko jëlee dañ ko jàppaa seen téeméeri loxo mm-hmm. Youssou Ndour mooy roi mbalax te Gambie yaay roi mbalax ci musique fii lañ ko jëlee ca taay mi màggadaan boobu Ousmane soose ak ñoom Badiaw ñoo daan pilee ca Tafa Jon lesewaaf mooy fi marché bi nekk fa la kanku jéeri nekkoon sénégalais yu bari fii lañ jaar waaye nag ñoom dañ fonk la am tey su ma juddoo woon Sénégal am eighteen years su ma tëggee pot sax lu ma def su ma ootee grand théâtre mu gis affaire bi ñëpp ñëw fii nag mu nal bay laal asamaan si uti leneen lu kenn xamul sax mu leen gënal ñoom li am te misaal maa ngi ana artiste fi nekkoon ñëpp dem nañ duma lim waaye ñépp dem nañ ndax dañ discourage sonn na ci sa musique bu ko taxawal sa réew di def lu mu la óor ne li maa def sax jombut moo gën li keneen di def waaye bëgguñ sa bos ah li si kanam day rawli bët waaye li ma gis presen nii dañ war a góorgóorlu bu baax di fàttaliku ñii ñun ñii lañ am suñ leen fàttaliku ñun ñuy dund dañoo ragal parce que dañoo wane suñ demee rek li mooy xew te daan naan kenn waru koo fàtte nanan du dé si olof mo tax ñuy wax lool olofal nanan du dé da dafa am lu fi dé bayyi nit ñi di jëriñu tay ndanan ndaanaan yi joxe gënaaw yépp tay man ni dégg gisuma ñu leen di célébrer comme suñu jëkkandoor li ñoo def ah na Gambia télé mang ngi leen di ñaanal bu baax seen TV bi yen ngeen toog ba di ko jëriñoo ci lu bare bare bare parce que yéen a ngi toppal lu bari at bu jot rek ngeen def lii man duma ne bu leen at bu jot ngeen fekk suñu laaj ñu non ngi tok seen kër yi def ko so lañ ko défé ni melni rek la mel. Eh, Moussa Damit Gambie dañu wara xam lu mu wot waaw because of senegal dañ dé gis na ñoom tamit bu yagul ni rek Dudu Njaay Kumba ros, duy wëy gëna na aduna waye every time ñu ngi wax ci mom xam nga di wax jalo rew ñu def fofu noonu lan askan bi naka la ko bilé naka la xalé yi folo ah, yi ciosan bu mu gëné fofu so like Moussa Afia Ngom rek ñun magi rew mi at kilifa rew mi nekk fi tamit ak government bi ma ngi leen ñaan ñu jàppa comme yeen ni ngeen di def ni ngeen di def yan na leen koy may ngeen ko def ay at yu bare bare because of li ngeen def ni ñew fekk ci ñun salam yi ñu waxtane affaire yi Moussa dafa bax lool si askan bi pour askan bi xalé yi jóg xam kan moy Moussa Afia Gambia wa su ñewé ci fana bobu nonu su ñewé ci fana bobu nonu Gambia Talent TV la Gambia Talent Promotions ñom ñom kenn du ñom ñom dañ dañ anda fada bala fada di gañu nit di tek ci bot diga ko gambia talent promotion dañ anda fada gambia talent promotion dañ anda fada di liggey am mom mu ngey dunda bem joxe gannaaw coloré bobu lañu ñoo lifin because olof dafa ne coloré gannaaw lay fété ñom bi mo dunda lañ ko téye xamné magala ku magala di dem ak mom yi be yalla ñu jël ko be tay ñom ñu ngey gestu njabotam di gestu mbokam di gestu ay mbiram di ay mbiram pour bu mu rir soo Gambian Talents Promotion ñoom kenn du ñoom ak ñu associé tal nekk si biti yëpp ku demee ni ñoom Pa ba Diaw ak ñoom Buhari ñoom Joog Malick ak ñeneen ñeneen si biti ñi nga xam ne ñu ngi see jàppa ñëpp ñoom ñoom wax dëgg neex yàlla ñun amuñ yéen luñ leen wax su dutoon yéen tey tey a àggale ñun ko fa àggale suñ ko fa àggale te foofu ñu laxaw seen gannaaw waaye instead sa yéen ñoo oone ñu kaay leen bés bi jot na kaay leen lii dem na waaye suñ ñëwee indi other side Gambia dañ bàyyi seen loxo suñ leen si tegee yéen Gambia ñi si des dañ bàyyi seen loxo tey nguur bi muy nguur mi sax waroon nañ tey Sara Fada du célébrité bu ndaw si dëkk bi fii yaa ngi understand Fada waroon naa nekk nit koo xam ne Gambia dañ ko waroon di célébrer comme Sénégal ni ko def Sénégal every year just for dañ ko ko defal Fada réeru Sénégal man su ma duggee Sénégal su ma ne man jarbaati mu Ngom laa lu ma soxla dee yomba. dañ dee concentré si man sax woon ma leneen beneen ité boo xam ne bi foo gaa xam loolu ité ité boobu man wanuñ ma ko soo rek wan na ma ne ma am na yëg-yëg daal si well it's like it's important for Gambians as a whole to respect and celebrate our living legends not before they are gone when they are gone because let me tell you one thing okay I need to show you support before you are gone. You know, I don't have to wait until you, you're gone and I start acting like, yeah, I was so in support of when we know that you were not. You know, when the person is leaving, you know, do your utmost best to support the person is important. You know, don't wait until he is gone and then you start in acting fake on it. You know, support it here or after. Because when the person is gone, when he is leaving, you supporting him. When he is gone, continue supporting. Try creating certain things, events that will link to him. Because he got a family in here that we have to support. So don't wait until the person is gone. You know? So it's important for us to respect our legends and you know, because somebody who was who was um, making you happy through music, you know, try to make him happy. when he is gone because there is a family that he left here and there's, there are ways that you can do to support his family is important that will make the person happy down there in heaven suñ kilifa yi nañ leen uh, utal ay toogu na gaam yee jéem a am toogu yoo xam ne du nit ki ba tey moom moo ko daajal boppam waaye xëy na nit ki moom moo ko yeelool boppam te dafa am ñoo xam ne dañ fi def yoo xam ne si dëkk bi eeloo nen yu mel noonu ñu tegal leen toogu yoo xam ne understand nga dina nekk ay toogu kilifa yoo xam ne xam nga kilifa bu nekk dëgg-dëgg di fa am place understand nga ba nga xam ne tey xam nga lu bokk si yow understand nga dina fa mun a feeñ dina fa mun a agsi xam nga mu nekk loo xam ne mbiri dëkk bi la understand war noo mun a gën a jàppale euh, gën a jox cër du ma ko wax jàppale gën a jox cër lin moom understand nga you know ko xam naa ne euh, am na ñu bëri ñoo xam ne xëy na am na fu ñu leen am na fu ñu leen seetaan te xëy waroon leen waroon leen fa woon a seetaan waroon nañ leen a teg fi ñu leen war a teg ba nga xam ne tey waaye sant yàlla ne xëy na tey lu mel nii am na yéen a ngi jóg di dox understand nga di di di waxtaanee mbir yi ku mel ni Moussa Ngom ak yu mel noonu yëpp. you know lulu dafa bok ci yu am njëriñ si dekk bi waye dal war nañoo gën a support lin mom. Lulu li nga wax nonu gëna ma maa du Musa Ngom rek ma si ñom Koto Ngom muy magam ñom Koto Ngom ñep def nañ fi sen wala and then uh, allah ñu ngi wacc even suma department bi sa si bopam defuñ ci lu bari to tell you the truth suma bopp laa koo njëkkee muy ca nguur gële nguur gu ees gi nag bi mu toogee yi xaw nañoo tane because ñu ngi xalaat li xalaat di lu mel ni def li ñoo ooyee posthumous award excellence in the arts award muy ñi nga xam ne def nañ fi dara ñu ngi si kaw plannings yooyu noonu ñu ngi si waajtaay doo waaj nañ ko ñaari at a ngi nii ba ñu ngi utali ji ñetti at ba léegi nuñ koo am waaye incha allah xam naa ne comme que ne mu ngi si biir xol yi mu ci biir xel yi dinañ ko ami nag dafa yombul pour am ko nag wax dëgg moo tax affaire yi demagutoo noonu waaye ñu ngi koo séentu te su dul fii waa digga la fu nguur célébré tut di communauté. su ma bëggee wax si moom mun nañoo toog fii at te duma pare waaye lu ndaw rek classé compi rek wax la si moom am he was a great dad. ku bëggoon njabootam ku bëggoon doomi aadama ku respecté woon doomi aadama and most especially ku bëggoon ki ma tuddee muy Afia mbàkke di doom si sëriñ Fallou mbàkke Afia Ngom papa la woon bu bu mut papa ah, papa bu jàmbaar la woon papa bu mandu la woon teg ci laa bi Afia Ngom si yow. Ah, si man moom suma maam la suma maam la woon parce que. man ñu ngi xamante ñoo wax teer bi xam nga dañ daan dégg turam yàlla dogal nag ñu nekk si ñu nekk xale yoo xam ne eh, Gambia fii dañ am wërsëg pour play ak moom buñ nekkee di play teer ba benn dee mu laaj ma ma wax ko wax ko fi mu ne ma yow moom sa maam suma gaal fen la moom kon xam nga suma maam mm-hmm. so noonu nag lañ nekk di demee ba pare ñu bokkoon koñ waaye moom dafa nekkoon koo xam ne kenn la woon su ñun daf ñu yokkal eh, expérience ñun Mm. comme ñun ñi nga xam ne ñoo nekk xale ay xale nekkoon si bande bi ñoom Kéba moom moom moo yar Kéba Sénégal mm. waaye ñun fii lañ xamante ak moom mu yokk ñu lu bëree bëree bëri bëri soo bàyyi xel eh, Just for You sax bi ñuy dem bi play ak moom loolu warutoon a nekk on the ten comme eh, démba mm-hmm. dafa waroon a nekk eh, on taat la waroon a nekk waaye bugg a dëkkaam bugg wone lu nekk dëkkaam moo taxoon mu bañ ne gaay dem parce que gars dañu bëggoon ñooñu bàkk leen foofu super jamono soo moomu bañ mu ne dafa am lu mu bëgg a soo bàyyi xel foog naa ne ñu ngi ko doon wane jos eh, TFM mu doon explain loolu dafa am lu mu bëgg a wane loolu mooy woon ñun soo daf ñu bëggoon a ibil yoon def na ko nag ba pare mm. waaw def na ko nag ba pare dem bàyyi na fi Ah, lolu naka la mel ci yeen dafa melni rek Moussa daf doon wane Sénégalais yi ne man Moussa Afia rek duma ma fofu fokk man ma nit ma ànd ak suma ay tiim. wa dëgg la dëgg la ñom parce que ñom dañ fogon ne xam nga rek Gambie ñom ñu ñu baké dañ fogon ne xej na dañuy dem rek def ben affaire waye nak yalla dem na def na ñu dem am fa ndam bu rëy bo xam ne ñun dañu ci té suñ time jotul bes bu dañu wàccee té suñ time jotul which means ne buñ fa def mo baax. Hmm. xëy na seetaan ngeen audio vidéo si ak yooyu waaw loolu waaye yëpp nag yàlla ak moom ba pare mu doon professionnel boo xam ne ñun ñun xam man de xaw ma woon ne sax feebar na mm-hmm. ba si kaw stage bi bu mu éegee parce que last morceau bi si laa soog a xam ne dafa feebar ndax am morceau bi nuñ ko dee play daf dee xala gaaw tuuti soo mu ngi yéex ba maa ngi naan suñ droma bi du gaaw tuuti ci la ma gars yi di joxañ paa bi ma def nii ma gis ma ki toog ma xam ne dafa febar moo tax drop yi ñëw ko wacce ko waye jambar la won ak limuy febar yeb mu ngi ñoo woon ne mom la professionnel su so ñun nak jangé nañ ci lolu boy yi nga xamne ne ñoo fi nekk dañ wara jangé ci lolu ndax du won ku ndaw wa du won ku ndaw ci bagage yi de bala nga ko xam nga demone ba Sénégal ndax dëkk bi fofu fess la del tek ci nekk 10000 nga fay ma nga fatale ko buñ buñ plie ba wacce di delloo sabar buñ abi won am benn waaye fekk ñu fa dañu laaj ndax Moussa Ngom dafa piree ba pare grand Moussa Ngom dafa joué ba pare ñu ne ko waaw mu mbéj boppam dem hmm. teewlu nanguwut a dugal ndax moom la bëggoon a seetaan si oh, ñun loolu moom dañ koy sant yàlla bu baax a baax bu ñu amee ku mel ni moom waaw mu yóbbu ñu ba Sénégal wane. loo leen gaañi liggéey leen. gaañi booloo leen kon nag gaañi liggéey leen. Amana na jo joo mam ñi coono woon nañ li metti woon ci liggéey bi suñu mam ñi def nañu ko kon nen leen ànd te jàpp ci te sito gani bore leen bore leen gaañi liggéey Oh Lord of mercy upon his soul. Musa Afyangam, Akasa, may your soul rest in peace. al yeah, Al-Qaduwaye. calling Gambiar Make me tell you this Unity was his way To unify the Senegambia Was his only wish So let his legacy live on Kandiri Fama Secondary Fama yeah. Job sayer la sayer mbaaw ndaan sama yaayo buy baax waaye bàyyi ma ko tànnal fada namm naa la fada namm naa la man de namm naa ko ak saa